السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نونغلين دي نيو نيو بي گنا رافت گنا سيل موي بي نو واخ لگی تي سوسو اك لگی السلام عليكم ما ديكو فرال دي فاتلي نيت نيو اسلام لپ نغي سي بير ndax jam moy li nga xamne bis bo bala ngay xamne ne mo am solo nga gis ku ko wala nga ñak kon ginaaw nit ta def dara te amul jam, lolo tax islam teunk lepp ci jam ndax jam rek ji jig nit motax ñun sunu nuyo ñu def ko assalamu alaykum kon jam joju ñong koy ñaanal ñepp di ko ci ñepp di ñaan sunu borom mu defal nuko ci njabot gi defal nuko ci sunuy xol ndax xol bu amul jam borom day sonn defal nu ko sunu xel am na ñoo xam ne feebar yi ñuy dégg yépp ñu naan diw dafa wopp xel mi moo amul jàmm rek xol bi dafa war a am jàmm ruugi it dafa war a am jàmm yaram bi am jàmm nga am jàmm ak ñi nga dëkkal kon jàmm munta ñàkk yàlla noonu ko yàlla defal euh, noo ngi sant bu baax a baax nag ki jotaay bi di nuyu ñu fi teew ñépp ci nuyoo boobu di ci jëkke kii nga xam ne tey jii moom moo teew ci jotaay bi te ñu koy xoole njabootu Cheikh ibrahim gep tay tay ji dafa melni wa keur Cheikh ibrahim yëpp fi tew ndax ben ciir ci Cheikh ibrahim bu nek Cheikh ibrahim la kon ni ñu ko jappé ñun ni ñi jàppe mbir japp ne diwa ngi ni diwa ngi ni diwa ngi ni yalla xamul loolu xam nga yalla lu mu xam ñi bokk pas-pas bokk yitte ñooñu la xam yowmal qiyam sax sun borom dama bëgg ngeen déglu baax wax yowmal xiyam sun borom du wo kenn nan ana jóobeen yi wala ana njaayeen yi wala ana mbengeen yi da nan ana ñi deggalon ana ñi deggalon ñi nga xamne dañu deggal ñu bokk taxaw ne mu ne ana ñi daan moy ñu bokk taxaw ne mu ne ana kat yi ñu bokk taxaw ne mu ne ana nafiqi ñu bokk taxaw ne kon nit ki lim doon jëf rek kim ko nurulel kokoy mbokam moo tax ñu ne mu noonu muminuuna wa jullit yëpp ay mbokk lañu ndax dañoo bokk pas-pas bokk lu ñu bëgg bokk lu ñuy def bokk lu ñu yaakaar bu ëllëgee kooku mooy sa mbokk kon noo ngi ciy nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teew te teewal fi daayira Cheikh Sidi Hadji ak ki fi teewal daayira maam Limaamu Laay bi ak mbokki taalibe yi fi teew yëpp danañ jaar seen tur ci kanam ak fu waay mën a jóge ak daayira fédération maam Cheikh bi ak daayira sëñ Cheikh ndigal bi nga xam ne daayira sëriñ Cheikh Fall Baye góor la ñoo ngi nuyu ñëpp waaye nuyoo bi nag ci turu sëriñ Mbàkke mii lañ koy def mu ngi nuyu ñëpp di jotal ñëpp ak yégam di xamal ñëpp ne kenn ku ci nekk noo defee ne yëgeewul ni sa teewaay ci bis bi ak sa fonkel ci bis bi ak sa yëg ci moom xamal ne yëge na ko nu raw noonu na ngeen xam loolu kenn ku nekk na ko xam ku fi teew tamit munta teew ku nekk mu di la wax li muy yëg ci moom waaye yàlla mi tax ngeen teew fi ak Cheikh Ibra yàlla moomu dara ump ko la taaxuzuhu sinnatun wala nawmun yàlla dadu jeexu sax bay bay nelaw dara ump ko inna allaha yaxlamu maa yusirruuna wa maa yuxlinuuna kon jëmm ji tax ngeen ñëw jëmm jooju moom dara ump ko kon nee na kooku rek lay seeriloo teew bi ngeen teew fii yalla rek la koy seeraloo té lool rek am solo kon mu ngi ci mu ngi lu bu baax teewaay bi di sant ñëpp di siyaré ñëpp di ñaanal ñëpp kenn ku ci nekk la gën ci yow yalla na la ko suñu borom defal sëriñ bi nee na mi ngi koy ñaan mi ngi ñaan tamit li nga xam bëggu ñu lu dul mom muy ngërëmal yalla té mu jaar ci sëriñ bi yalla nañ ko yalla defal ñun ñëpp ku fi téw yalla na bés bi tambalé doon sa te yalla boko ñakati waaw yàlla nag moom ah li muy def fi mu ko soob rek la koy roof ndax mooy faalun li maa yurid kon ñoo ngi koy ñaan ci faalunam jooju li maa yurid jooju yàlla na ko def ci sunu jotaay bi te ñoo ngi ciy rafet njort ndax eh, sëriñ bi nee na mi ngi gërëm Baay Fall baar mi ndax nee na li ñuy doyee ab sëriñ ab li ab sëriñ di doyee ab taalibe loolu mu ngi ci mooy wuy ci ndigal bàyyi tere sax ci njub te foo nekk déggook ñëpp dama bëgg ngeen dégg bu baax li may wax bokkut ak nga ngay wii ci ndigal di bàyyi tere te foo nekk xatal ñëpp bu boobaa loolu du doon dara nee na moo ko digal ne ko foo gis nit ku bokk ci lislaam wala ku ci bokkul sax koo mën a jàppale jàppale ko koo mën a dimbali dimbali ko te nee na ñëpp loolu la leen digal te nee na mu ñu koy digal ñun ñëpp ndax serigne touba daf ne ab jam bo gis samal ci mom akhi yàlla mi ko bind bul ne fi la fete bul ne ni la mel bul ne li lay def ndax jam ñi kat seen digeunte ak seen borom ken xaju ci ku yebu rek di ci rafet njort te di ci wax lu baax ndax yàlla fa muy mujjee jaamam ak la tax mu bind ko xamoko te ben jam ëpp na xeeb bu ken xeeb nit ci wax بكن kenn xeeb nit ci yéene bu kenn xeeb nit ci jëf wóorul ndax yonent yàlla nooxin li tax mu tudd noox fàttali naa ko nit ñi ba tàyyi mooy ab xaj la romb xaj bi ràmm ràgg mel noo xam ne nii xel mi teey moom nooxin mu ne xaj bi moo salte ci xelam ndekete yàlla rof na xaj bi dégg di yàlla ci kàttanam xaj bi dégg li wax ci xolam moo ku naan kenn mënta nekk fi di dégg li ci xolu nit te yàlla defal ko ab xaj mu dégg li ci xolu yonent te ñu ne nit ku baax mënta toog fii di dégg li sa xol loolu sax dinañ ci waxtaan ba ñu xam ne ñun li ñuy topp ñun taxawaaluñu doonu ñi tamit ay nit ñu yeewuwul ñoo xam ne dañuy topp ay sëriñ rek di nëmax nëmaxi demewut noonu de nit ñi la ñu waxul li ñuy topp lan la ak nu ñu koy toppe waaye bi yàlla roofee xaj bi loolu xaj bi wax ak nuuhin xam nga xaj du wax xoolal ñaar yi yàlla roof xaj bi xam nga lu ko may dañ ko xeeb moo tax nag lu nekk maa ngi ciy ñëw lu nekk ngi ci Baay Faal yi xam nga lu leen ko may liñ leen di tuumaal ak liñ leen xeeb bari na looy wër jamaa booy wër jamaa ak or booy wër di ko wuri fu nekk te Baay Faal bi nga romb mu sukk mi ngeeg moom te loolu danaa ci ñëw danaa ci ñëw danaa ci ñëw ñu waxtaan ci ndax tuuma ak xeebeel baaxul te jul yu jëkk yi loolu loolu lañ leen doon def waaye maa ngi ciy ñëw bu ko defee noohin xaj bi ne ko man bu ma sañoon maay doon noohin nga doon xaj bi waaye man yàlla bind gii ma bind ma mel ni sant naa ci man yow nag yaay fekk ku yàlla bind nga nga boole ko ni ko yàlla bind te muy cooba rek suñu borom nga xeeb loola noohin di ko jooy ay fan di ko jooy jooy yu metti ba ñu tudde ko nawxin nuuxin nawxu mooy ay jooy waaye Abdou Sakkoor la tudd foofu la euh, sëñ sëñ Touba jële turu sëñ Abdou Sakkoor jox ko Cheikh Ibra loolu moo tax tur woowu mooy tur wi gën a gànjaru ci tur yi te sëñ Touba Cheikh Ibra la ko jox kon kon léegi ñun ñëpp nañu xam ne ab jaam du xeeb moroomu jaamam ab jaam ku mu gis rek na la jàppee yàlla mi la bind sàmm ci yow yàlla loolu la sëñ Mbàkke digal Baay Faal mi moom la digal ñëpp mu mel ni nag tey moom way juram ndax waa bëgguma ñu foog ne waxtaan wi may wax li tubaab di wax autoglorification la man weesu naa loolu maanaam nit toog rek ngay wax lu ko neex ndax léegi nit ñi seen xel yi dafa gaaw du loolu moom mii maa moom ñoo bokk ku ñu yar kon lu ma wax ci moom dëgg la way juróom sëriñ ngunda euh, li ma toog ak moom ëpp na junni yoon mënuma ko wàññi li ma fekki muy jëfit ëpp na ay yoon li ma ko gisit kenn xamul nu mu toll te moom xam na loolu tey it toog naa ak way juróom ak sëriñ Cheikh Fall Baye góor mi ko yar ñoom ñaar ñuy waxtaan ma fekkee waxtaan bi kon defe naa ne moom mii waxuma ne xam naa ko xam naa ko kenn du ko wax am na lu ma xam ci moom mooy li ma gis te fekke ko wa ma shahid naa ila bi ma alim naa wa ma kunna lil ghaybi xaafizin baatin moom amuñu ko waaye nag li ñu fekke sañ nañ ko wax bu ko defee way juróom mooy sëñ ngunda ngunda mooy saalihu mooy sëriñ saalihu mooy Euh, doomi sëriñ Mbàkke Fall sëñ Mbàkke Fall di doomu seex Ibrahima Fall Babul Mouridina moom mi noonu la deme ñii ñoo dox digganteem ak Cheikh Ibrahima euh, sëñ Ngunda nag dama ko xamoon xam boo xam ne te ni bii ku ma yéem la woon li tax moom mii ñu war a am yaakaar ci moom laa leen di wax macha allah yal nañu yàlla teggil waaye. li tax ñu war a am yaakaar ci moom mooy baayam wallahi al azim ci ñi dàq alquran ci yoonu murit la bokk te te sëñ bi xam na ne sëñ Murtala nee na sëñ Murtala mu baax ma nee na soo dee wax ak nit dara as gor suy wax ak moroomu gorom na ko wóor ne li muy wax dëgg la ndax ki nga koy wax da dana ne dëgg la ndax xam na loolu waaye nee na saa boo waxee nit dara te xam ne du dëgg ci moom mën na laa suturaal ne waaw waaye dana xam ne yow mii li ngay wax dara teguwu ci fenn waaye sëñ Gunda nim mu meloon ci alxuraan ni mu ko mokkale woon baayam ni ko daan taree fu mu toll sëñ Bass Fall alxuraan mii nii mu mel nga xam ne eh, ñëpp xam nañ ko ci alxuraan waaye sëñ Gunda li sëñ Tuubaa di wax naan képp ku dib murit na nga taxaw ak alxuraan man na maa waat ne bàyyam alxuraan la taxawloon sëñ Gunda mosul tàggoog alxuraan bu nekkul yor ko di ko jàng nii mu ngi koy tari te mook sëñ Cheikh Fall Baye góor ñoo ko nuroo woon ñoom ñaar koo ci gis dañuy waxtaan ak yow ba mu yàgg ñu tàmbali alxuraan tari lu yàgg soog a continuer waxtaan ak yow nga xam ne xamoon naa ko ci baax xam ko ci lewet te ngën ko gën a lewet gisuma ko xam ko ci yiw xam ko nag ci yii ni ñëpp jàmm xam ko ci woyofal boppam xam ko ci wii ci ndigal ak bàyyi tere maanaam amul benn yoon boo xam ne bii sëñ Ngunda mas na koo ne ci lu dul ndigal ci dundam musul musul ne ci lu dul ndigal xam sax loolu daanaa toog dégg ko muy wax wax joo xam ne ji yërmande sëñ Ngunda dama mas a dégg mu toog ci saam ma toog ni mu ne li tax euh, boo gisee ñu leen di nettali nettaliwuñu ko ngir wane kooku nu mu toll dañ leen di fàttali ne ñun dañu am ay nit yu ñu war a roy te am nañ ko ba mu doy fu ñu séentoo keneen ku ñu war a roy rek dañoo wàcc suñu ànd waaye lu ñu war a roy rek sëriñ bi jox nañu ko loolu tax ñuy nettali seen jëf waaye nettaliwuñu ko ngir puukare woo ko déedéet sëñ bi sax soxlawu ko ndax bu ñu toogoon fii ba déwén du leen wax koy baayam du ko wax mukk ndax mosu fee ñëw ba ba tudd leen baayam xam nga mosul am mosu fee ñëw ba tudd leen maamam. kon tudd bi ñu koy tudd tudd ñu ko ngir kenn jàpp ne dañoo bëgg ku leen fonk wala dara dañoo bëgg ñun ñu fàttali li nu war ndax sëñ Tuubaa moo digle ñuy fàttalee nit ñu baax ñi mas naa ko dégg muy wax ne moom sëñ Gunda mu toog ci péncum saam mi mu ne moom yërmandeem àgg na foo xamante ne fii bu daan dem di seeti ab taalibeem wala muy gane ji kenn da day day jël alal ju bari dajale ko yónnee la ko ne la li nga may ganelee nan lay toll ak li nga ci soxlu yëpp nga wax ko ko mu yónnee la ko ne la ko kenn yëg yónnee la li nga koy yeewee loolu damaa dégg mu wax ko mu ne musum musumaa dem ci nit te du la ma fay jëfandikoo yëpp mag ko yónnee ittabi'u man laa yasalukum ajran wa hum muhtadun xam nga ne kooku ci ñooñ la bokk te alquran ko wax bi on topp leen man laa alakum ajaran ñi nga xam ne duñ leen laaj dara te dañ leen di jubal kon jikko ngoog yu rafet yoo xam ne yi dama ko xamoon ci moom te daan ko gis la kooku moom mooy meññ sëñ mbàkke mi sëñ euh, sëñ mbàkke mi sëñ mbàkke nag ki ko yar muy sëriñ cheikh fall bayib góor fekke naa lu bari ci diggam ak sëñ cheikh fall fekke naa ci lu bare bare bare sëñ bi da ko yar awale ko ci yoon moom mii toog ndax xam nga ku ñu yar saa boo gisee mu toog di nga ko xam ku ñu yee saa boo gisee mu toog di nga ko xam ku ñu dimbali it macha allah saa boo gisee mu toog di nga ko xam te man xam naa ne siñ Cheikh Fall yar na ko yee na ko dimbali na ko dëgg nee na dëgg la de te wallaahi li may wax sëñ bi xam na ko kon nag jotaay bii dama bëgg ñu xam ne ñun wàccuñu suñu loxo. du jotaay boo xam ne bii dañoo ñëw fekkee loo xamante ne li amaluñ njëriñ ndax koo xamante ne kii ne ci lim war a ne ku ko gis ku nekk loo sàkku ci moom rek yàlla defal la ko ku ne ci lim mu war a ne laa wax dama bëgg ay wolof laa leen di wax ni kon nag nañ leen góorgóorlu bu baax a baax a baax baax te xam ne bés bii bésu bésu bésu la bésu yërmande la bésu cant la kon sëñ Gunda moom yàlla nañ ko yàlla fayal fayal nu képp ku mas a liggéeyal sëriñ Touba te jaare ko ci moom te sëñ Mbàkke mi it lépp lu way juram bëggoon te naaloon ko yàlla na fi toog ànd ak wér ba àggale ko jàmm ndax xam nañ ne baayam xolam kenn mënu ko natt mas naa ko gis mu naan sëñ Cheikh fal man de ni ma goree ci yow xam nga loolu ñu koy wax seen sëriñ bariwul boobu maa ngi toog mu ne ko man ni ma goree ci yow bu ma sañoon ñëpp noonu lañuy ñuy goree man kooku gor la sëñ Ngunda gor la woon baayam gor piir la teg kat gor a jafe gor moom neex naa wax ñaari gor jur la yomb na xam nga am na waxkat yi wax ne maanaa diwuma jur ak yooyu amul solo ndax golo ngi ni ndeyam golo la baayam golo la ay mbokk golo lañu waaye jikko la baax lewul loolu moom dégg ngeen ko ba tàyyi ndax fu mu ne day yàq rek kon diwuma jur yooyu yëpp taxu ko am solo waaye li ne ci yow moo am solo te maa toog mu ne sëñ Cheikh Fall man de gor laa te loolu ñu ko mën a assuré bariwul de te dama bëgg nii ma goree ci yow ñëpp goree noonu te ngor moo jafe xam nga jébbulu yomb na liggéeyal kilifa yomb na te lool danaa ci wax waaye xam nga lu jafe gore daa am ku mas di ñaanloo sëñ Cheikh Fall Baye Góor xam naa turam mu ngi ci Europe gii wax ko yim soxla yépp sëñ Cheikh Fall ne ko li ngeen bëgg dara jafewu ci sëñ Touba. xam ngeen lu jafe gore waaw mu ngoog de dégg nga sëñ bi de nee na fekke na loolu de waaw waaw mu ne ko gore moo jafe te xanaa xamuloo ne fim mu nekk nii baat boobu rek la sëñ Tuubaa soxla ci nit gore ndax boo gorewul rek doo nekk murid saadix ndax xam nga Cheikh Ibra ngor a tax kenn dabu ko xamoon ngeen loolu dañ nañ ci waxtaan nag gëm géeg yooyu yëpp mën naa raw nit ñi ci ngëm waaye ngor la Cheikh Ibra rawee ku yàlla bind ah ngor ngor moo ko gunge ba mu àgg ci wax sëñ Tuubaa ci nekkam ne ko dama laa bëgg liggéeyal ba sama bàmmeel di la liggéeyal te loolu yàlla fekk ne ko ci ngor googu nag amul ci ñu jëkk ñi amul ci ñu mujj moo tax bi fi Cheikh Moustapha jógee Cheikh Ibra li ñu war di waxtaane ci moom sax mooy nite gi ak jikko yu sell yi nekkoon ci moom dama bëgg ñuy waxtaanee loolu ndax tamit nit ñi dañ ko umpale umpale goo xam ne dafa ëpp ndax sëñ Basiiru Mbàkke dafa am na allahu bi barakaati ibnu xaadimu rasul sëriñ Basiiru nee na bi fi sëñ Tuubaa jógee nee na Cheikh Moustapha daf leen ne na ngeen wër képp ku ngeen xam ne sëriñ bi defoon na dara ci moom na ngeen dem ci moom wax ko ndigal yim fi bàyyi ñu war ko ànd liggéey waaye sëñ Basiiru nee na bari na fu ma dem fu ma fa demee luñ may wax dañ ma naan ñun moom suñu wàllu wéy na kañ toppoon dem na léegi nag daal di woo seenub taaw ne ko ànd leen ak kii ñun moom mbir mi noppi nañ ci sëñ Basiiru nee na wax ji jaaxal ma jaaxal ma wax jooju yéem ma ba nee na ba ñu àggee kër Cheikh Ibrahima nee na ca la xam ne Cheikh bokku ci nee na mu ngi xa mu ngi doon sintu wax ju mel noonu ne bañ ko waxee wax ju mu ne nañ ñu daj nañ ma dajaleel waa kër gi yëpp ne ñëpp daje mu ne ak gaañe xam ngeen lu ma leen di doyee ñu ne ko déedéet mu ne dañ doon liggéeyal ku buggul dara see see seex seex xam sëñ Tuubaa ku buggul dara la ko tuddee woon yàlla rek la bëggoon xam ngeen walla ngee leen waaw sëñ Tuubaa buggul dara yàlla képp la bëgg loo ko bëgg loo waxoo dëgg ndax ndax ku ne xam na ne xaalis bii moom ci moom nga gëj a dégg ku koy fatte ay ay pax wala ñu jox la nga ne tegal foofu da koo gisati ah Cheikh moo tax ku yóbbu di diglu ay waxam lii ñu ñuy jéem a waar ci sëriñ bi yëpp waxam a gën a gaaw mu ne dañ doon liggéeyal ko bëggul dara waaw nee na kuy liggéeyal ku bëgg dara ba gis ku bëgg dara noo war a def xaw a rey sa bopp ah nee nag sëñ Tuubaa bëggul woon dara waaye sëriñ baa ngi sëriñ bi bëgg dara ñëw na léegi nag nee yoonu Murit a ngi soo ko tàmbali ñun nag ku fi sëb sëriñ jóge nga tàmbali naan <laughs> gone yi de moom ku yóbbu na xam nooy def rek ñun kay suñu wàllu wéy na ku ko def wàcc nga yoon wu bu yàgg ndax dégg naa ñu ñu wax naan doom doomi sëñ Tuubaa bu jeexee nu ay neex def laa ilaha illallah ku ko wax nga lu rëy wax nga lu naqari sëñ Touba kon sëñ tubaa liggéeyam bi dafa am fu mu waree yam yow loolu nga wax ne bu ci desee ah yëf yi kat li ci des mooy maslaa rek nag koo gis maslaa ak moom te defe ne murid saadix nga wax nga wax boo xam ne bu bu la sëriñ tubaa teewaloon ci kanamam la la la la ko ca naqari bu la ko waxoon daanaka da nga ba da nga xam ne presque génn nga yoon nañu wattandiku wax yooyu Cheikh Ibrahima ne kuy liggéeyal ku bëggul dara boo gisee ku bëgg dara nag. ñu ne ko ah Fall kon di liggéey jot na mu ne waaw ñun amuñu woon ab sëriñ ñun boroom lañu amoon ndax yàlla nu ko fayee sëriñ baa ngi nii mooy mu Moustapha ak waa këram nee na doomi sëriñ Tuubaa ñooy ay sëriñ waaye sëriñ bi du sëriñ dañ ko mënta ñàkk a wooye sëriñ rek waaw kay waaye sëriñ Tuubaa du sëriñ gaañi ab sëriñ du wax malaka nii toujours ma wax ko malakani dunya wa ukhra samadu aduna ak alakhir yàlla mom lo no mako mom serigne moom du ko wax nañ waxanti deug bar ani xaalixu min siwahu wa khadali man la yara sharwa serigne du ko wax ilay khad allah ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini sëriñ du ko wax nit ñi dañuy jaawale xam nga Sénégal luxuskat sax sëriñ lañ koy woowee da ngay yor say pétaaw ñu ne ab sëriñ la kuy yóbbuwaati ci yàlla ñu ne ab sëriñ la loo wax ko ku jug ñu ne diw ab sëriñ la léegi fenkat yeeg naafeq yeeg yëpp ay sëriñ lañ te arab yi ñoom dañ ko teqale arab yi ñoom ku nekk li ngay def lañ lay woowe ñu gën a yeew arab yi boo dee jëbarkat duñ la tuddee sëriñ de jëbarkat lañ lay tudde a saaxir saaxir lañ lay woowe dañ naan kii day jëbar boo dee sëriñ bu yóbbuwaati ci yàlla ñu ne cheikhu murabbi boo dee sëriñ bu jàngale kese te xamoo dara ci wàllu yàlla te te te tey jii ñiy jàngale kese ñoo bëgg a wan nit ñi ne xam nañ yàlla te jàng dong la ñu xam ñoom seexu taalim lañ lay woowee day jàngale dong bu la jàngalee ba noppi demal mu dem. loolu nag lu mat a teqante la boo gisee lépp jaxasoo fi mu dañoo xàmmewul yooyu Cheikh Ibra nag yoon wi mu nu xàllal dañu war di taataan ay waxam. di déglu niti gi mu nite woon di déglu yiw gi Cheikh Ibra yi woon di déglu yeewu gi mu yeewu woon ba nga xam ne ci moom la yeewu teyam ndax sëriñ Moustapha Saliou yàlla na ko yàlla yokk gudd fan ak wér dégg ngeen mu wax ne li ci sóoratu yaasin jëmmi Cheikh Ibra la sëriñ Moustapha Saliou ko wax ñëpp di ko dégg nee na jëmm jooju wa jaa min axsal madinati rajulun yas'a dégg nga alxuraan ni ma ko melalee te siñ Moustapha Saliou moo ne kooku mooy Cheikh Ibra wa jaa amu dikk min axsal madinati jëkk dëkk jóge ci dëkk bu sori dëkkul fii ñi lii di xewe bokkul ak kii muy topp si bokkul ak ñoom dara fu sori la jóge waaye nag rajulun góor la goo xam ne yes an ah, jëf rek la xam ci jëf rek la teg kon alxuraan waxoon na ko góoru jëfkat gi Eh, andi na ko sax ci yonti yàlla Moussa ka ñëwoon di ko wax ne ko ñu ngi lay wër ngir rey la rajulun yas'a la tudd moom tamit noonu la ko alxuraan tudde kon képp koo xam ne mu ngi tegtale loo xam ne bu jaam ñëpp xettali ndax Moussa buñ ko reyoon risaale ba fa lay waaye ka wax ne ko ñu ngi lay wër ngir rey la rajulun yas'a la ko alxuraan kon jëf ji yàlla di wax bokkut ak jëf yi ñuy wax mooy jëf joo xam ne boo ko jëfee ñëpp gindi ko jojo lay wax de alxuraan dafa xeri deg de seigne chafal bay Baab Góor ma lu koy firi manako ko xam-xam munuma dedet ak koy firi ku la upp taalibe mo la gëna deg dégg xam ngeen lutax soko waxon tay ji ñu ne way déggal li ñi wax manam ab taalibe lan moy ab taalibe lan moy murit moy ki nga xam ne jëf yi mu wara jang ci alxuraan and gi mu and ak serigne bi mo koy def ci mom xawma nak xam ngeen lima wax Hmm? jëf yi nga xam ne moom nga war a jàng ànd gi nga ànd ak sëriñ bi da koy def ci yow ci saasi am na benn bés may misaal fii ci Brighton ci Angleterre di leen wax ne xam ngeen luy jébblu ñu ne waaw mu ne Cheikh lépp jox na ko dëgg loo gis ci àdduna rek nee na Cheikh Ibra wax nga dëgg lépp ko jox dëgg man leen xam ngeen lu tax ñu ne waaw man leen màngo sax màngo nit boo koy wax da koy wax lu mu xam mango yi sax bokkuñu am na mango yoo xam ne tuuti na tuutiwaay boo xam ne wex wexaay boo xam ne naqari naqariwaay boo xam ne bari caas boo ko lekkee sa bëñ yi lay dugg doo ci am ñam wu bari dana wex xat te yàlla bind màngo boobu bind ko ah gis papaaya boo xam ne amul benn jal-jal xam naa njaayeen yi fi ne kontaan nañu <laughs> <laughs> ah misaal rek nga gis papaye boo xam ne amul benn jal-jal maanaam dinga ko lekk ba kii daanaka doo doo sekkareetu doo def dara bee nag boo ko mosee dina boore naqari amul ñam ba noppi dugg say bëñ te màngo la de te yëpp màngo la tudd waaw léegi nag eh, eh, léegi soo bëggee màngo bu weex boobu bu naqari boobu bu néew ñam boobu <laughs> sëñ bi jërëjëf. bo bëggee mango boobu neex nokoy def ah nokoy def jébbalu la len di wax moy lan ci ay wolof ba ngeen xam ko bala ñuy dugg ci ay alquran ak yoy nokoy def dang koy da ngay dem fak mango bu nakari nga xar mango bële dugal ko ci bir tak ko mango bi màgg màggaaleeg mom ko mu génne rasu màngo bu bes bu neex dëgg la wala dëgg loolu mooy jébbulu da nga fekk sëñ bi yor loo xam ne yoroo ko nga ne ko sëñ bi nu may def ba gere fay coow mu ne lu ma la digal nga def ko lu ma la tere nga bàyyi ko nga ne ko loolu mooy gere fay mu ne waaw nga ne ko ayca mu ne la ayca ngeen di dox di dox ba mu yàgg Cheikh Ibrahima nee na ki ñu gërëm ak ki gërëm bu seen doom yu nuróowul am na ko waxul dëgg ah mbaa ngeen li ma wax ne ki ñu gërëm ak ki ko gërëm bu seen doom yu nuróowul am na ci ko waxul dëgg am na ko nax moroom benn sëriñ baa nax moroom euh, taalibe ba wala taalibe ba nax sëriñ bi li Cheikh wane loolu laa bëgg a wax ci wolof yu leer nit ñi xam ko ci lu ñuy gis soog a andi nag ci wàllu yàlla fan la tege ak alxuraan fan la tege ba nga xam ne kenn du fi jóg naan li Cheikh Ibra wane kenn xamul lu mu doon waaw léegi man leen laaj benn baat bu sëñ Moussa Ka wax rek jar na delloo Cheikh Ibra njukkal si giir dund nee na tuuti kon mu fekk sëriñ bi lëm mbiram ba kenn du mos ci baatinam lu bul tëbës ba ñuy texe